mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér gu yaram santé animal gisaytu sama la nu muy dundee fii ci Ladoum TV MTV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar ko seetaan bu la dara raw waaw ñoo ngi ci bergerie Prime de Riz waaw fekk fii suñu xarit suñu doomu ndey euh, Niang Ballo Niang Ballo ñu bàyyi la waaw asalaamaaleykum waa Ladoum TV di siyaare ñëpp ñang baalo la Mamadou ñaa ñi gën ma xam ci ñang baalo bergerie Pirum Dëri waaw ñëwoon exposé ci foire ramadan des éleveurs ak euh, association Relly vraiment di kontaan lool seen teewaay macha allah loolu am na solo ñang baalo ak lu élevage yëpp nangu euh, namoon euh, foire namoon exposition yow nga ñëw exposition bëggal ñu indil ñu ñaari box naka nga ñu mën a waxee sa sélection ni nga defee sélection bi ak ñaari box yi sujet waaw waaw élevage bi moon nañ foire nak waaw ak euh, Covid bi contexte bi mooyewul woon ñuy foir daaw lañ programme woon foir bi nag mais comme sottiwul woon ren bi levé kii mesure yi rek ci lañu préparé daal di matal affaire yi daal. waaw waajal nañ ko nag waaw xool xale xar yi gën a pare ñi prépare leen rek indi leen ci foire bi comme xam nga euh, éleveur moom foire waru ko bett parce que éleveur laadum moom vraiment chaque fois mi ngi. métier di defar ay xaram di leen alimenter bu baax di leen sang sang mu set di leen teg fu set moo tax bu foire ñëwee rek day tànn xar yi nga xam ne ñoo gën a pare rek mu ñëw exposé leen waaw exposé nañ ñaari box waaw ñaari box nag vraiment indi nañ fi maal benn maal bu mag ak ay femelle ñu mu àndal ak ay mboteem benn box bi ñu sélectionné ay femelle ak ay tëng quoi macha allah loolu am na solo gars yi namoon foire nga ñëw def exposition bu mucc ayib indi xar yu rafet tubaar fakal la ñu gis fi benn maal bu yéeme maal bu rafet am dayo am ossature nga présenté ñu maal bi. waaw maal bi mooy ay Mady waaw Aynou Mady ñu bëri xam nañ ko mooy dëkk bu sell boobu nekk Algérie am Cheikh Ahmed Tidiane Chérif juddoo fa comme ñun ay taalibe Cheikh lañ ko di yëngu ci kër gi waaw ñu tuddee ko Aynou Mady rek waaw moo tax moom mu ngi bokk ci. Merlin papaam doomu Merlin la mu tudd Pape Ndaw jóge Thiès Pape Ndaw bu Thiès waaw moo ko tuddee woon boppam maal bi mu tuddee woon Merlin ndax da ko bëggoon waaw doomu Merlin bi mu bëggoon la tuddee woon boppam muy Pape Ndaw yaayam nekk doomu avenir waaw ñu recruter ko ci jamono yi passé rek ci Pa Watara pa bu baax aussi diñu jàppale suñu élevage waaw macha allah loolu am na solo moom mi ngi toll si ñaata weer ay numaadi waaw ay numaadi mi ngi ci 20 mois waaw 20 mois bi ñu koy recruter mi ngi amoon 14 mois instant yi am na juste 20 mois quoi mais vraiment wan nañu loo xam ne doy nañu daal vraiment ci xar ak âge bi mu am nii pour nga gis xar bu mel ni moom vraiment yombul daal ci élevage bi waaw. loolu am na solo ñu gis fi nga doon léegi benn femelle bu rafet nga ñu femelle. waaw femelle bi mooy madame ñaa sama soxna muy doomu Boy Pire yaam nekk doomu Assane waaw muy femelle bu rafet vraiment di def production bu rafet aussi vraiment am nañ ci moom satisfaction bu mag vraiment ci xar mi. loolu am na solo waaw ba tey ci exposition bi rek waaw ñu gis ci beneen box bi xar yu yéeme tubaar fakal xar yu rafet waaw nga présenté ñu xar yooyu. waaw beneen box bi ay tëng ñoo fa nekk waaw tëng yi ñaar yi ay doom building lañ building doomu Merlin la aussi ak Diop Boulanger waaw beneen tëng benn bi yaayam doomu Assane kii la doomu Arfan la mooy Anta bébé Anta bébé Anta. Bébé Anta doomu Arfan moo ko jur bu jigéen boo xam ne dañ jël doomu Assane te ko ci Arfan mu jur ko waaw beneen tëng bu weex bi mooy Blanche Neige Blanche Neige yaayam doomu Boy Pire la Boy Pire man maa ko yoroon maa ko ci mayoon tëb Ablaye Ngingue waaw Boy Pire léegi lañ jël doomu Boy Pire bu jigéen lañ jël teg ko ci Merlin ci doomu Merlin muy building Merlin ak Diop Boulanger muy Blanche Neige mooy muy femelle bu rafet vraiment ku ñëw rek di nga ko bëgg quoi waaw am na fi aussi ñaari doomu Kaskaay Kaskaay doomu magistrat la ma jëlee ko ci Pa Mansour Mbodj vraiment moom mu defal ma production bu rafet bi ma ci pare liggéey ci laa dugal ay numaat yi waaw aussi am naa fi benn tëng boo xam ne doomu diaspora la diaspora mi nga xam ne vraiment moo lëmbe 2020 bi ak transfert bu mag bi vraiment doomu diaspora boobu yaayam nekk doomu M6 M6 nekk doomu Assane 2 waaw yaayam aussi doomu benn doomu magistrat lañ teg ci M6 mu jur ko waaw macha allah téléspectateur Ladoum TV yéen a ko gisandoo Niang Ballo exposé exposition bu mucc ayib waaw Niang Ballo nga fàttali ñu adresse bi ak sa numéro téléphone pour ku bëgg a ñëw ci bergerie. waaw bi nekk entre la la ak euh, rond Fadam waaw boo jugee amoo 6 rek da ngay yegg si boo jugee marché Ndiarème aussi da ngay yegg si waaw numéro téléphone bi mooy 70 869 54 07. waaw ñuy gërëm axlu élevage yëpp di gërëm Ladoum TV di leen kontaane vraiment gis nañ li ñu yéen di liggéey ci élevage bi seetaan bu la dara raw visibilité dinga ko am um, promotion dinga am ah. nanga wane sa ci émission Jaja bi nga Ladoum TV télé askan